ci xëtam gu njëkk ci leeral point net euh, non paiement des salaires durant les vacances les enseignants du privé exigent le respect de leurs droits li nga xamante ne rek mooy am ñàkkub li nga xamante ne mooy euh, ci vacances yooya ah, enseignants yi nga xamante ne ñu ngi ci privé ñoom daal ñoo daal di wax ne nañ leen jox seen àq ak nga xamante ne mooy ay enseignants du privé ñoom nag ba rek ñu ngi daal di amal ak euh, njaxle gi nga xamante ne rek gannaaw sanitaire gu réew mi amoon yi tamit gannaaw rek ngir lëkkaloo li nga xamante ne mooy école privée yi ngir daal sauver seen école ba benn payoor bi nga xamante rek jóge na ci ñoom même sax naam bu fekkee ne ñi nga xamante ne ñooy école privée yi jot nañ tamit ab subvention yi état ba sax ñu mën a daal fay li nga xamante ne mooy lu gën a bari ci ñoom ñu rek sukkandikoo ci ab communiqué gi nga xamante ne syndicat ba daal daal dina ko am lee mu ne ñi nga xamante ne rek ñooy ay enseignant yu am CDI ñoom ba tey rek daanuñu recevoir li nga xamante ne mooy seen salaire ci vacances yooya et sax xam ne yenn école privée yoo xamante ne ba tey ji dara waxu leen